ginaar naka lay demee ndax gis nañ ni fan yi jaaykat yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yar ñu ngi joytu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci boobu lépp filière rawatina li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu financement ndax jot ko dal na loo xam ne lu jafe la gis nañ ni ñi nga xam ne évolué nañ ci ci plus de 40 ans wala ay yu bëri ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafeel ba ñu ngi xalaat sax daal di génn ci secteur bi dem xool yi leneen lan moo waral lu ni mel ak yan piste de solution lañu ñu war a mën a teg sur table ba fexe secteur boobu loolu euh, ñu mën ko euh, gorgontewaat niñ koy waxee ndax gis nañu de plus en plus jeunes yi ñu ngi lancé wu ci boobu lépp secteur moo waral tey ñu wàcc sur le terrain dem ci tool yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaanu Kër Massar daal euh, di fiy fekki ay agriculteurs waaye it ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu élevage yu ginaar yooyu ñu xool ak ñoom jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel ñu tegtal ñu ko waaye it xool naka la ñuy def ba solution daal di mën a am. waaw fii mooy ñàkkurab waaw Niakoulrab nag euh, mi ngi après Kër Massar waaw fii sama poulailler la sama tool la waaw. d'accord euh, en fait euh, boo xoolee am na trois. waaw trois bu ci nekk mën na insérer bande bu 2000. waaw épouchère. d'accord naka liggéey bi doon na lu yomb waaw bon yomb na yombul. parce que liggéey poulailler nekk na liggéey bi nga xam ne il faut nga vécu ko am ci expérience yàgg ci mun koo xam waaw soo ko xamee nag laa du difficile parce que comme ñun aussi def nañ ci filière bi ay 15 ans quand même moo tax gisuñu ne xaw na métti d'accord yan xam-xam nga xam ne doomu aadama bu ko amee dina ci mën a évoluer waaw ah, si bien sûr liggéey la suñu ñuy jàppalee rek mun a couvrir filière bi quand même aussi ku ci nekk mun nga ci bay sa war mhm. waaw jàppale ñu ci wàllu secteur bi dafa xaw a am ay difficultés te difficultés yi nekk secteur bi bëri na mhm. sama mbokk éleveurs yi am problème mu poussin aliment bi di bërki démb ni mu chéré ak yeneen ak yeneen j'en passe boo koy expliqué bëri nay yi nga xam ne su ma ko temps yi permettre woon mun naa ko faram fàcce étape par étape wax leen di ci nekk waaw boo xoolee tey ganaar yi ay cases de 2000 2000 la ça plus de 6000 ganaar moo nekk ci tool bi bon boo xoolee nag euh, bâtiment 1 Euh, di nga jël deux sacs euh, quatre sacs vingt cinq kilos. waaw c'est-à-dire euh, xale yi fi nekk nag la matin la ñuy jóg tôt les coups de cinq heures du matin génne mangeoire yi raxas ko sangé ndox bi servir aliment def seen premier ramassage d'œuf à partir de huit heures ba dix heures ñu def seen ramassage. Euh, toogaat ba midi ñu defaat deuxième ramassage bi complété aliment defe naa ne noonu la liggéey bi demee ba la soir aussi tamit ñu defaat la même chose. donc ci ramassage bi. ko def trois fois. ci journée bi. Mhm. waaw dinañ ko def le matin les coups de huit heures parce que boo joxee aliment cinq heures du matin ganaar yi bu ñu lekkee ba mu commencé leer euh, huit heures jàpp neuf heures mun nga def sa premier ramassage. boo demee ba côté ay midi jàpp 13 heures nga def sa deuxième ramassage mhm. après troisième ramassage bi nag da nga koy def les coups de 17 heures mhm. après nag doo ko pare nag ko mhm. léegi mu bon ça dépend ci effectif bi parce que effectif bu mu doon nag mun nga dugal 2000 dugal mille dugal mille tey supposons mun nga may wax na ma Ismaïla dugal nga fi 2000 ganaar euh, batiment bi ñaata lay génne ci ëf. bon mun nañ la batiment bi day tourner autour di presque boo xoolee ay presque ay cinquante huit wala cinquante sept parce que ganaar courbe la euh, au départ la ba ñu nekkee étant poussin am ay quatre mois de ponte moom dañ doon tourner autour di presque euh, quatre vingt pour cent wala nga ne soixante euh, wala nga ne quatre pour cent mais actuellement nii dañuy gën di am chute di wàcc boo doon am ay cinquante huit cinquante neuf tey maa ngi tourner autour di cinquante cinq cinquante six plateau ci deux mille ci deux mille ganaar ganaar ban seen ban at la ba seen rentabilité jeex. waaw ganaar yi nag euh, ganaar moom pratiquement courbe la lu mu la mayul ci un an yi defe naa ne bu duggee deuxième année bi rek presque boo xoolee day commencé am chute. Hmm. moo tax ñu desine ko ci benn euh, ci carte bi genre courbe la nii la def dafa yéeg wàcc léegi nag départ bi day def nii day jékki benn moment mu wàcc. Hmm. Ah, c'est-à-dire noonu la demee ko moo tax euh, financement bi aussi dafa compter ci prix def bi. parce que moo def benn investissement euh, de de de de de de de six millions ci benn deux mille bi euh, bu fekkee tombeek prix nen bi baaxul et l'aliment là est cher bon peut-être mun nga bañ a réussir coût c'est ça. d'accord ndax investissement la boo xam ne borom dina ci gis euh, boppam. waaw effectivement investissement la dina ci gis boppam à des ci kaw aussi tamit am na risque. Mm-hmm. parce que mun nga tey investir ci ay millions ganaar yi dem ba début de ponte ñu am problème. mar ak génn feebar bi nga xam ne aussi euh, ganaar dañuy commencé di dee aussi kooku éleveur bi day perte. waaw euh, loolu moom aussi daal bon yaa ngi koy dugal mun nga sóor ko aussi tamit mun nga gagné ko mun nga perte. Mhm. waaw mais aussi bu fekkee prix bi baax na là quand même aussi mun nga gën petit à petit. d'accord léegi lan mooy nekk message bi secteur bi a secteur bi nag ma leen ci gën a conseillé ñu dem wuti formation bi doog koo mën a def. Mhm. parce que ganaar nekkul li ngay ñëw rek tey am naa financement damay def ganaar. Mhm. bon man duma d'accord ci loolu. damay bëgg nga am formation bi. Euh, xam poulailler bi surface bi effectif bi nga fi war a def noo war a yoree ganaar yi loolu déjà boo amee formation boobu laa mun nga ci ñëw nga liggéey ci. aussi xam marché bi su fekkee danga def pondeuse laa mun problème bu fekkee da nga def poulet de chair nga jéem a aussi xam marché bi bu say ganaar matee noo koy jaayee pour mun a génn ci ko bi. c'est ça il faut am xam-xam ci secteur euh, nga am xam-xam. Mm-hmm. parce que munoo xëy rek un bon jour euh, dem ñu jox la benn 10 millions 5 millions nga ne damay dem ay ganaar non non non ci génn. mais malheureusement ñun ñi nga xam ne pratiquement dañ ci def ay at yi at mënuñu am financement mënuñu am dara ñun dañuy tourner ak suñu propre fonds suñu propre moyen te boobaa booy yàgg tourner say propre fonds say propre moyen dafay métti te aussi dangay ngay employé ay doomu aadama ay xale ñoo nekk ci tool ma man nekkuma fi dama am benn activité mooy def ay xale ñoo fi nekk di fi liggéey nga yor leen mais tey du ku lay mun a soutenir nga mun a am yenn financement yi ba gën a mën a def euh, investissement yi gën a am solo par rapport ak investissement yi. liggéey bi poulailler la ñuy def fa dañ jënd poussin jënd aliment jënd garab euh, démarrer ko soo ko démarrer léegi dans 4 mois 5 mois bon mu commencé produit ci wàllu garab yi aussi dañ leen di vacciner waaw hémopèse toppatoo bi da ngay réceptionner poulailler ba pare pomper dans une semaine nga soog réservoir euh, poussin yi mu ñëw nga def vaccin yi. premier bi war a ñu day am euh, ay feebar léegi feebar yooyu moo tax nga koy def pour mën a rey virus bu ne ci poulailler bi waaw. nga mën a ñu koy def ci vaccin bi aussi daa am euh, ay garab yi nga xamante ni moom lañ leen vacciné mooy tax production bi di augmenter en plus du am aussi feebar. bu jóg rek daal ko ay prévention lay doon waaw. ay imopes ay variole ay gombro ay anticoque genre yooyu daal moo koy dal moo tax ñuy prévenir mhm. fii nii moo fi nekk. fii 1000 mhm. bi naka lay deme euh, alimentation la suba ak ngoon mhm. waaw. comme alimentation. comme waaw. jërëjëf mooy lan yombul yombul. Mm-hmm. yombul moom vraiment yombul. ndax lan yombul hmm. parce que euh, xaalis bi nga ciy def moo bari. Mm-hmm. en plus dañoo yokk aliment bi. Mm-hmm. léegi da ngay jënd aliment bi da nga ciy mujjee tegaat sa xaalis te ginaar yi ñu koo génne. problème boobu lañu am. complètement. d'accord mel Euh, lu manqué waaw loolu ko indi dafa am lecture euh, problème mu yokk aliment bi mhm. dañ ko yokk en plus amuñu coussin mhm. da ngay bëgg liggéey doo liggéey loolu parce que dans trois mois quatre mois ñu ngi demandé ay coussin mënuñu koo am mhm. lan moo waral coussin yi manqué lan loolu ci waa Sodima la parce que ñoo yor affaire production bi aliment yi moo seer ñu ngi ko defoon euh, Euh, treize mille sept cent cinquante léegi mu ngi évolué ba quinze cent cinquante loolu aussi booy bu ñu war a amoo produit boobu da ngay mujjee jël sa xaalis di ci tegaat loolu. pertement day waaw mu am peese la complètement. Mm-hmm. léegi lan ah, bëgg a def léegi lu ñu bëgg def léegi suñu kilifa yi mm-hmm. ñu yëg ko comme président ak ñu mu àndal ñu jéem cee def ay jéego. Mm-hmm. waaw bu fekkee problème mu taxi la ñu jëm cee waxtaan ak ñoom waaw. moom ma jënd poussin ma démarrer sama bopp voilà mu élevé damay def char damay def aussi pondeuse. waaw yomb fii. non yombul moom instant yi nii nii nii sax dafa dafa difficile. ndax waaw am aliment bi dafa cher. garab yi aussi yokku nañ leen aussi. poussin aussi yokku nañ ko temps yi ñu koy jaayee ay trente mille. aliment dafa manqué. waaw. bon xam naa peut-être. Euh, léegi nen nen bi ñëw moo ñëwatul moo tax moom mu xaw a manqué nag gars yi yokk ko def ko ay trente mille des fois am ñoo xam sax trente cinq mille la ñu jaay dañuy spéculer te loolu xam nga ne tamit bon baaxul ci ñun. ñu xam nga bon boo nekkee éleveur bu ndaw ñu mag ñi ñoom ñoo ñoom ñoo ñu war a jàppale mais tant que ñoom jàppale wuñ ñu bon du yokk aliment bi boo yokkee tey nga toog deux mois yokkaat toogaat presque deux mois encore nga yokkaat parce que aliment bi yokk nañ ci trois fois. loo xam nga day métti lu doon jar 14 500 léegi nga dem ba 17 400 wala 17 500 ñun pour ñu génn si day métti voilà. lu métti sax parce que booy booy dé boo dugalee sax sa poussin cher nga jëndee benn poussin bu nekk par exemple nga jëndee ko euh, carton bi yaa ngi ko jëndee 30 000 nga def. aliment 17 500 yow boo calculer boo jaay boo jaay lu dul 2500 wala 2750 sax pour nga génn si problème la da ngay mujj obligé de jaay 2750 wala 2500 pour nga am tuuti yaa ngay fay location xam nga yaa ngi yaa ngi dundal say ginaar yaa ngi jënd garab yaa ngi vacciné xam nga loolu aussi dafa métti xam nga loolu ne bu ñu si gaa yi mënoon jàppale aussi dina dina doon loo xam ne dinañu arrangé ñun quoi parce que lu ñu doon am amatuñ ko léegi très sincèrement. ndax loolu moo tax saa yi ñu gis voilà loolu mooy problème bi nag léegi. boo gisee eh, pénurie bi am flambé prix bi la. parce que prix bi ni mu yokkee dafa jéggi dayoo vraiment état war na aussi jàppale ñu jéem a euh, euh, euh, waxtaan ak gars yi nga xam ne ñoom ñooy yore kii yu mag yi minoterie yu mag yi ñu jàppale ci aliment bi mën a wàññi au moins bu ñu ci teg woon 1000 francs sax dana mais prix bi nu mu demee nii très sincèrement ñu arrangé tuñu léegi quoi moo tax nen bi léegi aussi gars yi ñu ngi jaayee nen bu mag bi 2200 nen bu yamamaay bi ko jaayee 2000 francs xam nga voilà voilà xam loolu tamit boo bu fekkente ni ñun euh, euh, jënd nañ aliment bu cher bu ñu mën a jaayee nen bi aussi prix bu prix boobu parce que ah, ah, maanaam nit ñi la ñu war a jàppale maanaam askan bi la ñu war a gestu parce que néegu doole yi dañoo bëri dañoo bëri que nen léegi bu fekkee da ngay jël benn nen nga jaay ko 150 francs xam nga loolu tamit ñu bëri dootuñu mën a am accès ci ci nen bi quoi. même mhm. te aussi ñu bëri dootuñu tamit dootuñu lekk ginaar. te ginaar 3000 nga dem marché wala 3500. xam mhm. mhm. nga loolu c' est excessif c' est gis ko. doo doo ko gis gis parce que léegi prix bi yokku na aliment bi yokku na nen yi nen yi gisatoo nen. ah nen boo couvé gisatoo ko couvoir yi léegi boo demee. bousculade bi dafa dafa am doole foofu ku nekk yaa ngi bëgg ku nekk yaa ngi bëgg ku nekk yaa ngi bëgg léegi boo boo déboursé wul mille francs doo am 5 doo am 50 pour nga déboursé 35 wala 30000 minimum pour nga am benn carton te carton boo ko jëndee 30000 ba pare bëgg a fay local bëgg a jënd aliment bu cher non vraiment boo jaayee doo am dara. carton bi ñaata pourcent lay def. 50 lay def 50 lay def par exemple boo bëggee def benn boo ci bëggee liggéey daal ci benn biir ñaata carton mooy doy. bu fekkente ni euh, boo bëggee def 500 10 carton lay doon. 10 mhm. carton lay doon te 10 carton yaa ngi jënd yaa ngi jënd 33 sacs pour alimenter leen. Mhm. sac bu ne yaa ngi koy jëndee mille 17500. calculer 17500 nga jënd si 33 sacs. Mhm. loo ko mun a jaay garab yi ñëwagul da ngay vacciner da def bu dee spondylosis da ngay def intramusculaire. te intramusculaire bi dafa am doole dafa cher intramusculaire bu fekkente ne h bi la dafa cher 1000 dose bi yaa ngi koy jënd ay 35 40 mille bu fekkente ni euh, euh, kii bi la euh, coromine 4K ou 7K yaa ngi koy jëndee 70 mille benn 1000 dose boo amee 2000 2000 dose ngay mujjee obligé jënd 140 mille fay prestation ki la koy vacciner intramusculaire parce que dañu koy piqûre nga fay ko benn benn benn sujet bu ne. nga fay ko vingt francs xam nga loolu tamit dafay dafay dafay dafay metti jënd 70 000 fay 20 francs sujet bu ne 20 francs 1000 sujets yi ñaata la vingt mille nga doole ko 70 000 muy muy 90 000 presque am nga loolu dafa metti ci benn te da ngay defaat da ngay defaat rappel encore muy ñaari rappel vaccin bu nekk da nga koy def rappel sinon risques yi dafay ñëw ci ginaar yi ginaar bu ñu feebaree aussi nga def par exemple 3 millions la 3 millions 500 feebar ñëw ñu fuuf xaalis boobu loolu moo tax gars yi war nañu gëstu quoi très sincèrement. bon exactement technicien c'est pour euh, suivre les poulets euh, bu amee maladie wala dara nga def autopsie xool ban genre maladie la boo à part si kii bi euh, euh, autopsie bi. nga xool yan symptôme la après nga mën a xam yan antibiotique ngay joxe pour ginaar bi mën a kii. d'accord waaw bu amee fekkee da nga am benn taux de mortalité. Mhm. il faut nga autopsie trois sujets wala 4 sujets. Mhm. léegi boo defee autopsie. si biir euh, autopsie bi si ngay mën a boo boo xoolee da ngay gis quelques symptômes mu nekkee maladie respiratoire wala maladie digestive bon si nga xam yan antibiotique mooy indiqué bi pour loolu. d'accord en général yan façon bëri na mm-hmm. euh, bëri na parce que sa dépend si période bi des fois ginaar day am maladie respiratoire day soj bu fekkee dafa am benn vent bu soufflé si biir poulailler bi. Mm-hmm. moo tax euh, bu nuy defar bâtiment. ñuy xool orientation vent beeg yëpp bon loolu day créer maladie respiratoire bu fekkee plat bi dafa am manque d'hygiène itam da ngay am euh, ay problème mu maladie digestif ak yooyu. Mm-hmm. est-ce euh, yomb. bon yomb na yombul euh, nga am yenn rigueur yi. nga am attention di raxas nettoyer bien les abreuvoirs ak yooyu pour ñu mën a am yenn bactéries yi bañ leen dugg. Mm-hmm. bon on dit pour cent. de réussite de l'élevage c'est la propriété donc propriété bi il faut ñu veiller si bu baax quoi. ñu ñëw fekk leen ngeen doon ramasser nen yi man processus ba am nen naka lay demee. bon processus ak nen il faut que ginaar yi am 4 euh, mois mhm. nga commencé gis les première signes à de 4 mois nag dañuy am lu ñuy wax courbe de ponte mhm. bon courbe de ponte bi nag à part de 4 mois ça dépend de la chouche et puis ça dépend itam si suivi bi. Mhm. à partir de 4 mois euh, mu commencé di déclencher après mu am couve de ponte bi courbe de ponte bi day commencé à pour cent commencé di yëg à fur et ginaar bi di am euh, maturité. Mhm. mu nga dem ba 80 ba 90 pour cent. Mhm. waaw loolu élément euh, aliment bi ñuy jëfandikoo tamit lan moo ciy solo. donc aliment bi il faut que mu riche bon il faut que mu am euh, ay vitamines yu baax ñu def ko ñu composé ko bu baax. Mm-hmm. mais temps aliment bi dafa dafa cher. loolu mooy suñu principal problème. Mm-hmm. parce que euh, prix bi si année bi daanaka yokk na deux fois. Mm-hmm. instant yi ñu ngi ko daan jëndee treize mille cinq cent y a même pas trois mois. léegi mu ngi nekk à quinze mille cent cinquante. léegi fu mu nekk amatuñu dara daanaka on travaille daanaka en perte parce que c'est très difficile parce que boo xoolee kilo aliment bi 33 francs la man yi maa ngi yor 1000 sujets maa ngi joxe deux sacs et demi maa ngi joxe presque 38 000 francs par jour. par waaw léegi bu fekkee yow góorgóorloo ba amoo compte bu baax rek da ngay daanu il te foog mu bon bon bon nga am 30 plateaux pour nga mën a am dara boo amee yenn baisse de ponte yi. te des fois euh, usines yi jaay aliment defaa fois jox la aliment boo xam ne baaxul. waaw dañuy faral di wax wàññi dose yi. voilà. instant yi nii aliment yi baaxul fu mu nekk nii man maa ngi woon sédiment. Mhm. instant yi da aw ma résultat. sama bon dana naa am résultat avant. Mhm. amatuma gisatuma résultat léegi maa ngi ñëw daw aliment pour xool est-ce que ça va progresser oui ou non. Mhm. vraiment loolu moom bu ñu si mënoon jàppale moom dina baax. trop est ba maa ngi nii instant yi maa ngi si maa ngi si NMA. Euh, Euh, ça fait deux jours laa ko laa commencé mais pour nga mën a xam résultat il faut nga am trois jours trois jours yoo xam ne ginaar yi dañ koy dañuy dañuy lekk pour nga mën a xam est-ce que y a une progression waaw wala de mm-hmm. parce que nous on n'a pas les moyens am laboratoire pour vérifier est-ce que l'aliment est bon wala c'est pas bon loolu dem beneen jafe-jafe la tam beneen jafe mm-hmm. sax au moins éleveurs yi organisé wuñu def benn association am seen laboratoire mm-hmm. ñu mën a di xool aliment bi est-ce que baax na wala baaxul mooy principal jafe-jafe. jafe ak am na beneen jafe-jafe itam boo xam ni. il faut il faut ñu signaler ko parce que ñu bëri xamuñu ko. ku mel ni sédiment. bu bëggee moom du ñu jaay euh, poussin. jaay ñu aliment ba pare di concurrence ak ñun. ñoom ñu am seen propre ferme di di concurrence ak ñun loolu itam suñu jafe-jafe principal la xaw ma éleveurs yi xam nañ ko wala xamuñu ko mais vraiment loolu moom je tiens à cœur pour pour pour pour wax soo ko wax parce que maret bi mooy Euh, couvoir bi ci boppam moo ko war a vacciner bu ko couvoir bi vacciné wul ginaar yi day dem mbaam am un deux mois jàpp trois mois nga gis ñuy am ay signes yoo xam ne signes paralysé di dee chaque fois da ngay gis dañuy nekk en forme da ngay ñëw fekk ñu lekk naan def lépp mais da ngay ñëw la laan demee mën nga génne sans mun nga génne chaque jour da ngay génne da ngay matin soir mm-hmm. affaire boobu nekk affaire bu garaaw nekk boo xam ne ñoom daanaka couvoir yi yëpp dafa mel ni ren daf leen moo leen dalandoo parce que mm-hmm. vaccin mu ñu war a def moom nañ deful maret bi mm-hmm. am na ñoo xam ne tey fii ba léegi problème boobu da nga ko amee mm-hmm. problème boobu ñun dal nañu euh, xam dañ ci am ay pertement yu bari yoo xam ne kenn mënu ko expliquer da ngay dem ñu war la ko rembourser du la ko rembourser dañ yoo xam ne naan la ñoom ginaar yi da nga ko jënd ñoom ay da ko jënd indi ko bu ñu ko indee ñoom dañoo am ay pertement dugg fii génn fële yow da nga siy am ay jafe-jafe te xamuñu yow noo def ba investir xam nga euh, loolu dafay indi jafe-jafe si si si éleveurs yi vraiment affaire yi sonn métti na trop eh, lu mat 600 ginaar. Mhm. lu mat ginaar chaque jour ngay gis mu dee. Mhm. chaque jour da ngay gis mu dee au fur nag euh, après bon lu si des yàlla yàlla def na si barke bon mu taxaw daal. Mhm. wàllu perte bu nga ko doon def dañuy def ay 4 millions. ay 4 millions la ñuy perte parce que d' abord du du du poussin yi sax parce que poussin yi par exemple mun nga ko jëndee eh, valeur ay 900000 wala 1 million. mais bu fekkoon ne dañuy ñëw di nga perte huit cent mille perte neuf cent mille mais dañuy bàyyi ñu lekk. lekk ay quatre tonnes cinq tonnes. nga investir ba pare ak garab yi ngeen ak vaccin yi nga jënd ba pare ñu dee. foofu nag mooy métti parce que aliment yi moo cher. aliment moo gën a cher poussin yi. parce que li ngay mun nga am deux mille poussin nga nga dépensé lu mat deux millions mais poussin yi bu ñu ñëwee aliment bi di nga si dépensé par exemple lu mot ay cinq millions. Mm-hmm. problème bi foofu la nekk. ba nga xamee ne ñoom dañuy ñëw. am ba ba nga si am yaakaar ñu commencé di dee loolu mooy jafe-jafe bi. Mhm. waaw aliment bi dafa mel ni dafa faible. trop sax moom nuroowul loolu mais dafa feebul trop. Mhm. parce que dafa mel ni ñoom depuis ba ministre wax leen euh, pour ñu wàññi euh, wàññi teg si mille francs yi ñoom ñu insisté na loolu dafa cher mel ni jamono ji dañ si teg sax awi 200 francs xaw ma nu demee noonu. Mhm. mais dañoo mel ni dañoo wàññi dosage bi. parce que ginaar yëpp a wàccandoo. wàccandoo maanaam. dañuy am baisse de baisse de ponte. Mm-hmm. baisse de ponte tey boo daan am par exemple ay 40 plateau da ngay am ay 38 wala ay 37 te da ngay yaakaar ne yow kese la mais euh, suñu groupe bu ñu bokk wala fii ñu nekk si tool bi koo woo dafa naan la même chose la lay wax. Mm-hmm. dafa naan la dafa am baisse de tension. Euh, baisse de baisse ponte affaire boobu nag jaaxal nañu ba nga xam ne ñun dañoo yaakaar ne si dosage bi ñoom it si euh, côté boobu nu ngi koy récupérer. dañ fi bay naana bay fi oignon. bay fi salade bay fi kaane salaat bay fi persil chinois ak persil ordinateur. mbayum naanaa moom naka lay da ngay jëmbat soo jëmbatee soo amee un mois dix jours mu mat nga commencé baana baana yi ñëw nga commencé jaay. mais léegi façon waaw naanaa yi dafa bëri ay façon parce que am na ordinaire am mant am passe. am naanaa Sose am naanaa Fass am Maroc. bon nu la neexee nga koy bayee waaw parce que soo ko soo jëmbatee daal seddaay bi yëpp day dox seddaay bi mais su demee ba nawet heure boobu la jafe liggéey quoi parce que taw bi waaw. bon jafe-jafe yi des il faut que ñu am ay produits yu nga xamante ni moom lañ di produire suuf si comme ay tursu ban produit ko pour ruur yi yuy dagg soo jëmbatee sinon dañuy dagg lekk reen yi quoi te soo lekkee reen yi affaire yi dafay dee waaw ak jafe-jafe engrais aussi engrais bi dafa cher parce que au lieu kilo bi mu doon jar trois cent franc léegi mu ngi jar sept cent cinquante bon des fois mu manqué sax doo ko gis. jafe-jafe yi tool bu mel nii. bon euh, damay jël lu mat ay quatre sac chaque trois mois yu nekk damay jël ay quatre sac engrais nitrate bi bon am na engrais bu tudd nitrate boobu kilo bi 1000 francs lay jar boobu moom suñ ñu ko mënoon wàññil dina baax trop. parce que boobu moo gën a baax si engrais yi quoi moo ëpp doole si engrais yi. tey naka la gën a baaxee parce que léegi de plus en plus dañuy wax ni dañuy faral di def bay boo xam dafa naturel dellu ci ñu daan bayee bu nekk boobu euh, wàññi produit yu toxique yeeg yooyu. non maanaam euh, soo soo jëmbatee ba mu am ay vingt jours vingt cinq jours ci ngay def engrais bi nga bàyyi ko noonu ba mu amaat benn vingt jours ba jàpp vingt cinq jours après parce que dañuy def fumier. si fumier bi lañ fumier xar yi lañ ci njëkk a def si euh, suuf gàbbaale ko suñ ko gàbbee ba pare comme labourer quoi suñ ko paree après ñu jëmbat léegi soo jëmbatee naanaam si jógee bu am ay 20 jours ci nga si def engrais euh, soo defee engrais ba pare presque mën nga toogaat lu yàgg lu mat presque ay deux mois yu doo def engrais soo daggee rek fumier élevage bi ginaar yi moom nga si defaat rek comme ça muy jóg maanaam lu ñuy utiliser ci engrais du bëri quoi lu ñu utiliser ci fumier mooy gën a bëri. bon des fois nag ñu am ay problème des fois nga def oignon mu mat doo am foo ko jaayee mbaa mbaa kaane poivron ren moo tane sax mais daaw fii def naa fi kaane lu tolloog moitié hectare bu nga xamante ni kilo cinquante franc laa ko doon jaay am yu bëri yu nga xamante ne sax dafa yàqu. dañuy am problème pourtant jamono yi da ngay yóbbu si marché yi waa Mboroy indi waa Fass booy waa Jogo bon après marché bi day taxaw léegi nag suñu amoon fu nga xamante ne dañ ko fay mën a denc loolu moo ñu doon arrangé nga xamante ne soo bayee su lambee nga witt denc ko foofu su demee un mois deux mois mbay mi wàññeeku nga mën a génnee jaay ko si marché bi loolu mooy suñu problème. mais yéen mënoo leen constaté boo xam ne di ngeen amal seen bopp bërëb boobu. bon xam nga comme fii euh, baykat yi bëriwuñ noonu fekkee comme peut-être côté Mboro bi mbaa ay gànjul yooyu peut-être ñoom ñu man loolu ko parce que bëri na ay baykat yu mag comme ñu ñun ay baykat yu ndaw lañ dañuy taxale rek. différence bi yi ñooy poulet de chair mhm. waaw poulet de chair mooy ganaar yi ngi ñuy yar euh, ba ñu mat ndawal ñu jaay leen mhm. ba ñu koy ndawaloo bu déggee yooyu mooy chair wute nag pondeuse mhm. pondeuse mooy yi neen fi ngeen jógee mais yi chair la ñun dañuy yar rek pendant quarante cinq jours bon ñu amee deux jaay ko euh, wutiwaat leneen. yéen fi mu nee nii tey laa toll ci 22 jours. Mhm. waaw man bu ñu tollee ci ñaata fan la mat. Euh, dina am euh, bu gaawee ba gaaw euh, dina dem 32 jours mbaa 33 jours nga commencé gis benn benn yu commencé am. un kilo neuf cent jàpp deux kilo mhm. mais bu ñu demee ba am nag quarante cinq jours foofu la baax parce que mhm. da nga am ganaar deux kilo bu teg d'accord euh, waaw parce que poussin yi léegi euh, trier tuñu ko mhm. euh, nu mu génnee ci couve couveuse noonu lañu koy jëlee rek jox ko jaay ñu ko noonu. Mhm. dañu ko tànn dañu ko def dara. Mhm. loolu moo indi loolu te yooyu fi mu nee nii pertement bi moo ciy ëpp yi ciy dee moo ci ëpp. boo indee poussin daanaka bu fekkee mil nga indi. Euh, mortalité boo koy calculer balaa ñoo dem ba am 15 jours da am luy da nga dem lu am luy dem ci sans mortalité. Mm-hmm. waaw bu mën na am euh, qualité nen yi. Mm-hmm. peut-être mën na am nen yi ñuy indi ci couveuse bi nen yooyu ñoo baaxul loolu mën na nekk mm-hmm. mais euh, boo couver bu génnee dafa am poussin yi nga xam ni waroo koo jaay. na nga ko war a trier yaa xam noo koy def mais waroo ko jaay askan bi ñu ciy loru. waaw fokk mu manqué parce que fi mu nekk nii boo ko xoolee ñun liggéey bi sa euh, dellu ginnaaw la ñuy def mënatuñu dem aliment bi cher na cheraay bi nga xam ne foo ko teg passé na foofu bi ma commencé élever ba léegi ren la 40 ans maa ngi élever parce que bu njëkk ñun aéroport la ñu doon dem jëli poussin indi ko mais poussin yooyu. wute na ak poussin yi léegi mm. waaw poussin yooyu seen baaxaay moo tax ñu ñu leen ñu ko doon ñu tuddee ko belga yooyu belga la tuddoon mais yooyu mënatuñu ko gis ci marché bi pâte zone ci boppam pour nga gis ko problème la pâte zone sax moo tane sax léegi yi nekk fii mm-hmm. boo dajee boo amee sens nga daje pâte jaune nga alhamdulilah eh, am naa pâte zone peut-être yii dina mën a teel a euh, développé mais pat zone ci boppam léegi gisatoo ko loolu moo tax ma ne la nen yu bari nen yu baax ci boppam indeetuñu ko ba mën a produire poussin bu baax nga xam ne euh, liquide du bari mm-hmm. aliment bi daal sonnal nañu garab bi sonnal nañu garab bi cher na cheraay bi nga xam ne bi kenn xamul foo ko natt paase na foofu garab baa ngi nii sa ginnaaw mm-hmm. mu ngi noonu benn bu ci nekk bu mu la waxee tey li muy jar da mm-hmm. ngay naan déedéet aliment bi saag bi ñu ngi koy jënd mille 17500 sans compter transport pour indi ko fu poulailler bi nekk. xam nga loolu éleveur te client yi nga doon jaay dëmb ak barki dëmb ñuy ñëw di jënd ci yow di dem di jaayiwaat mënatoo leen jaay parce que lu tax af aliment bi cher na garab bi cher na boo defee sa bilan ba nga calculer boo dugalee band 1000 mbaa band cinq 1500 boo jaayee ba mu jeex. da ngay jëliwaat xaalis nga dugalaat ci ndax nga mën a am départ nga dem. Mhm. loolu moo am fi mu nekk nii man mil yi laa dugal fii. Mhm. fi mu ne nii mil yi bu jeexee te aliment bi wàññiwuñu ko damay fexe arrêté ma jéem a seet leneen. Mhm. parce que mënatuma dem. maa ngi ay xaalisu jàmbur mënuma leen fay te affaire bi yokk nañu ko. tombe nag ma kumaan. mëntuma dellu ginnaaw. Mhm. gor ca wax ja. Mhm. ñu ngi rocceeku. ñëpp ñu ngi rocceeku parce que boo waxee ñu ne président bi moo yokk président moo yokk ñun ay nit njaay lañu. defuñu président bi bu mu yéegee fii ba léegi man may wax yàlla moo tax may wax mhm. Sénégal dafa gën a développé di gën a jëm kanam peut-être nag nit ñi bokkuñu gis-gis man ki li ma gis loolu laay wax ku lil xaq wala kaanam ron man loolu laa gis boo génnee. mais boo fekkee da nga nekk benn place rek manoo xam mais boo génnee nga xam ne président mu ngi liggéey man ci sama gis-gis ak li ma gis te yokk bi leer na ma ne lii du président amul xol boobu déedéet. mais tey naka lay def loo xam ne yaa ngi ciy liggéey pendant plus de 40 ans nga xëy un bon jour ndax peut-être bor aliment bu cher moo tax nga bëgg cee aliment bu cher ak médicament bu cher bi. moo tax ma bëgg a bàyyi dem seetiwaat leneen li may def sinon bor day gën a sama kaw bopp rek te bu yàggee dañu may euh, considéré clients yi te ma yàlla li may dunde ak sama njoboot bëgg naa mu nekk lu sell. association ki di ANEPS di association nationale des éleveurs agriculteurs et de la pêche du Sénégal donc ma présence ici je suis venu assister à le combat que 2STV est en train de faire avec le président de l'ANEPS Je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui était là, qu'on a vu, j'ai vu, ce qu'ils sont en train de mener pour le développement dans le secteur primaire. Je leur en remercie dans l'élevage, dans beaucoup de secteurs. Donc je tiens à le, à le remercier. Donc j'aimerais aussi qu'un appui aussi vers la zone sud, la région qui dit la zone sud, la verte Casamance, de Bouloumbouy jusqu'à Diogué, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Moi, je suis de la région de Sédhiou et qui dit Sédhiou dit département de Goudompe et Bunkini. Et j'aimerais aussi cet appui que le président et les secteurs des ministères, ministres de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, viennent aussi s'investir dans la zone sud Ça ma fera plaisir aussi. Je tiens à vous remercier, euh, le président Mohamed Faye, le combat qu'il mène avec l'ensemble du personnel de cette fédération. ñu ngi lancé appel président Macky Sall mu gëstuñu te xam na ñun ëllëg tey mun na ñoo dem tey boo yor fi ay entreprise entreprise beneen beneen côté bi su may waxee beneen côté bi mooy si côté sédiment parce que mënu ma imaginer yow nga ñuy jaay poussin yaa ngi dégg di ñu jaay aliment yaa ngi dégg di ñu di di ñu di ñu jaay euh, nen comprendre nga ba pare yow nga koy buuxanteeg ñun si marché bi parce que mu ne nii Auchan yëpp moo fay jaay ginaar te moo ñuy jox poussin yi yaa ngi dégg marché yi foo dem ay nenam nga fay fekk comprendre nga yaa ngi dégg ñun mënuñoo am mënuñoo jaay da am ay 200 tablettes yoo xam ne da kay koy teg fii pour nga jaay ko pour am aliment sax problème lay doon comprendre nga xam nga loolu noonu dafa doon loo xam ne dafa xaw a métti comprendre nga location poulailler bi seer na boo bëggee fay weer 60 Euh, fay sa fay fay sa surga jënd alvéole 5000 francs yaa ngi quinze jënd saaku cinquante lan ngay dese yaa ngi dégg cher yi nga bëgg a jëndee 17500 plus transport ah ak sa loyer lan ngay dese loolu dafa métti waaw man nag abel bi may lancé moom maa ngi koy lancé président Macky Sall mu gëstuñu waaw ñun waa Kër Massar waaw bàyyiwuñ kenn nag képp ku éleveur rek bu ndaw rek yaa ngi dégg ñu ngi lay lancé appel. yaa ngi dégg yaa ngi ci biir. mi ngi noonu ñoo ko déggandoo gis ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci secteur bi ci filière bi euh, li ñu wax euh, ci euh, jafe-jafe yi ñuy jànkonteel waaye laataa ñuy dem ci plateau spécial bi nga xam ne fas yéene nañ ko secteur ak président bi nga xam ne moom moo ëmb kuréel yi yëngu ci wàll wàllum agriculture ak élevage dañuy dégtal benn petit bonus mën nañ ko tuddee noonu ndax ba ñu ñëwee ci tool yi fekk nañ fi ñi nga xam ne dañuy bay itam moo xam naanaa la. salaat euh, kaani salaat ak li nga xam ne moom mooy euh, soble ñoom itam ñu wax ñu jafe-jafe yi nga xam ne euh, ñu ngi koy jànkonteel ñu seetaan ko dem seeti na ki nga xam ne moom mooy président bi nga xam ne moom moo ëmb ko yi ni ma leen ko waxee ñu sekk ak moom waxtaan ndax moom li mu bëgg moom moo ñu taxawal ay assises. mu noonu gannaaw gi nag ba ñu dégtalee suñu micro ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllub élevage ginaar ci lu jëm ci wàllub aviculture dégg nañ li nga xam ne moom moo gën a fës ci seen i ay wax ci seen i ay kàddu moom moo waral ngir jeexal li nga xam ne moom mooy plateau spéciale bi ñu leen concoctel tey ñu toogal fii ak ñaari kàngam ci wàllub élevage jëm ci li nga xam ne moom mooy wàllub ginaar ñu daal di ci toog ki nga xam ne moom mooy Mouhamed Faye moom mu nekk président bu association nationale des éleveurs éleveurs et du Sénégal waaye it mu daal di fiy dende ki nga xam ne sànq moom la ñu mujjee jox kàddu gi di Ismaïla Ndong moom itam kenn dootul table euh, xarañteem ak mën-mënam ci wàllub euh, élevage donc tey euh, Mohamed ba ñu déggee ñi nga xam ne moom mooy éleveurs yi ci daanaka tool bi ñu njëkk a dem ñoom li ñu xam ne moom mooy fi mu ne nii seen jafe-jafe bu njëkk en tout cas ci wàllub élevage moom mooy aliment bi dem na ba xam ne dafa cher te coût yi ni mu leen dafa diis loolu ci ñoom Euh, maa ngi lay nuyu ci euh, plateau bi nga ñëw génne wàcc sur le terrain pour seeti euh, éleveurs yi c'est important avant may tontu sa question bi dama lay féliciter wax ni lii bokk na ci lii suuxat mbir yi di ko dëgëral parce que dem fekki nit ñi ci seen liggéey laaj leen seen ay jafe-jafe ñëw jooytu ci yow loolu lu am loolu lu am solo la donc c'est pour cela que vraiment ma lay remercier. léegi euh, ni nga ko waxee noonu la xam nga éleveurs yi moom euh, bala ngaa xam seen soxla dëgg nga fekk leen ci la ñu yëngu aliment bi yàgg nañ ko wax yàgg nañ ci xeex ñun def nañ ci ay démarches lu ne def nañ ko ci wax naa ne la depuis 2015 ci la hausse des prix commencé di dem daanaka chaque année ñuy teg cinq 500 000 francs cent mille francs ba mu àgg tey ay 18 000 et quelque loolu régime bu ñëw noonu la ñuy demee ak moom te ñi koy yokk du régime bi moo koy yokk loolu xam nañ ko tey jii ñoom waxal nañ la ko ci sa bopp ñi koy yokk mooy structure yi fi nekk ñi nga xam ñoo def wàllu production aliment volaille ñoom ñooy yokk ñoom ñooy yokk aliment bi te kenn du xam lu tax yan contexte lañ koy teg pour yokk aliment boobu euh, te ñun yàgg nañu proposer ni loolu buñ bëggee affaire bu réglé wu Sénégal am nañu macha allah espace bu yaatu suuf su baree ngi ci réew mi am nañu ndox bu yaatoo yaatoo yaatu ñoom dañuy jooy ni importation maïs bi mboq bi moom cher. charte boobu la ñuy la ñuy taafantaloo di ko wax tout temps mais ñun ñu ni leen bu dee loolu mooy problème bi loolu mën nañ ko résoudre parce que baykat yaa ngi fi ñun ñu ngi fi proposé leen ni leen ñoo leen ñu liggéey en partenariat lépp lu ngeen soxla ci mboq mën nañ leen ko bayal fournir leen ko jox leen ko mooy problème bi ñu réglé loolu mais ba léegi ñoom nangu ñu ci seen boobu kon peut-être que ñoom li ñuy wax dañ koy taafantaloo mais amul loolu mooy li jooy tax euh, éleveurs yi di ko jooy ba bëccëg yokk bi metti na wax nañ ni loolu il faut que état bi jël taxaw jël ay mesures yu am solo régler problème boobu parce que tam ñi fi nekk ay structure dong lañu di liggéey comme ñun doole bi ñu ëpp rek ay entreprise lañ yor ay usine di produit aliment ñun tamit ñoom fañ démarré foofu la ñu démarré waaye réew mi dafa am loo moo ko moo moo moo jiital réew mi mooy état état moo yilif ñëpp yi ku mu mën a doon moo xam borom doole bi la moo xam ko amul doole état moo ñu bokk yilif ñu ñëpp mm. képp koo xam taxaw nga pour noot sa morom état war na ci mën a taxaw. état war na ci mën a taxaw balaa ñoo ñëw ci euh, participation état ci mbir mi euh, ndax mën nañ jàpp ni seeraayu aliment yi moom moo tax yenn ci produit yu jëm ci wàllub ginaar ñu daanaka gis ko ci marché yi jafe na lu ci mel ni aile de poulet lu ci mel ni nen sax daanaka léegi dafa cher bu ñu la ko jaayee tablette bi ñu mm. bi ci yéen la wala aliment bi moo lu ni mel. aliment bi moo indi problème boobu cause bi yëpp aliment bi rek la cause bi yëpp aliment bi la parce que bu fekkente ne yow da nga naan am 36 plateaux par jour wala 40 plateaux par jour aliment bi daanaka dosage bi sax ñoom composition bi dañ ko wàññi daanaka amatul benn valeur boo ko joxee ginaar yi nga jox journée bi daanaka booy ramassé léegi dafa baissé ba 28 plateaux te da nga daan am ay 36 plateaux par jour xa nga loolu vraiment ak koo xam ne chaque semaine yaa ngi joxe plus de 4 tonnes nga dépense plus de 600 quelques mille tonne bi presque 300 quelques mille la semaine bi boo jëlee 2 tonnes presque 600 quelques mille la léegi plateau bi yaa ngi ci dàq 200 francs am na ñoo xam ni borom ñun producteurs yi nga xam ne ñun ñoo ñu ndaw ñi ñun 100 francs lañ ci dàq buñ ko joxaate ki koy jaay 200 la ci dàq affaire bi noonu lay continuer moo tax muy dem ba 2800 loolu aliment bi moo indi cherté boobu poulet de chair bi ngay wax ne tamit yàgg naa ko wax yàgg naa la ko même aliment bi ñuy utiliser pondeuse yi presque moom la ñu utiliser ak poulet de différence bi rek xëy na ay poulet yi ñuy utiliser yooyu moo lañ ci du laal mais croissance bi ak démarrage bi yëpp da koy jël te même prix bi ngay utiliser donc ginaar tamit poulet de chair boobu nga xam ne un mois 45 jours def nga dem jaay ko mais kooku mënatoo ko jaayee 2000 francs kooku kooku producteur mën na ko da koy jaayee 2300 ki koy jaayewaat yóbbu ko 2500 muy yéeg 2003 muy yéeg 3000 ba àgg ci benn niveau boo xam ne askan wi duñu ko attan loolu mooy problème mu éleveurs yi donc ñun lu ñu jooy ci secteur bi rek nokk ñoo xam ne ñun dañoo nekk ci yor suñu xaalis wër ci plateau télévi di wax di kaas guddeeg bëccëg non non non ñun dañ ciy yëngu ñun dañ cee nekk di exercer ci secteur bi xam ci ay problème ñàkk ci nag ay millions yu bari nag yu bari yoo xam ne suñu alalu bopp la ñu ko sàcc ñu ko fenn suñu alalu bopp bu ñu liggéey la te ñun gisuñu kenn kenn kenn ku ñu défendre loolu waral ñun ñu ni combat bi ñoo ko war a porter ñun suñu bopp xeex ko ak fànn bu ko mën a xeex mais ci yar nag quoi dañ ko def ci. ci ñëwaat tuuti ci département yooyu Ismaël laa bëgg a jox euh, mm-hmm. kàddu gi moom it tey gis nañ jafe-jafe yi bëri nañ ci ci secteur bi tey boo ñu ko doon euh, résumé lan lañ ci mën a jàpp. waaw soxna Khadija maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sa caméraman bi euh, di la dalal jàmm di la wax ne la bu ma lay résumé filière bi rek li ma ci mën a wax bëri na parce que filière bi bon man du ma ko jàppee rek comme si que ni en fait. ci problème mu aliment moo tax filière bi am problème filière bi dafa basculé de gauche à droite tey boo xoolee am na ci couvoir yi nga xam ne tey da fa doon dem jënd fa ay poussin pondeuse poussin yi am maladie marek tey ñaata éleveurs ñoo am problème ci loolu ay centaine de éleveurs tey jox nañ leen ay ganaar ganaar yi réformé nañ leen c'est fini perte nañu kon beneen far na mi ngi noonu euh, nga ñëw aussi timit ci wàllu aliment bi aliment bi c'est vrai que cher na lool ba tey tax na éleveurs yi mënatuñ cee génn parce que éleveur boo ci gis tey muy def euh, nen wala ki def poulet de chair tey soo xoolee poulet de chair tey ñi koy jënd ñi ngi koy jëndee ci poulailler yi pratiquement deux mille mille cent ak 2100 à 2200 autant 2000 lañ ko doon jëndee. mais revendeurs yi tey bu ñu jëlee ganaar fii ci ci ci ci tey di ko jaayee à Dakar mais dañu ko jaayee à 3500 3000 or que ñun éleveurs yi jaay ñu prix ganaar loolu par A ou aliment bi yokk mu wàññi à chaque fois que ganaar dafay basé wu à prix 2000 francs kon donc léegi bu demee sax bay exagéré di jar ay 2200 2100 c' est parce que peut être coût aliment bi moo xaw a cher et aussi tamit euh, est vrai que ne métti na Euh, mais provendiens yi ñoom ñoo xam exactement euh, seen ku aliment lu mu leen di dikkee ba tax mu cher parce que man aussi tamit soo xoolee tey mun naa jàpp ne fii Sénégal euh, am na ci industrie de volaille yi fi nekk yi nga xam ne pratiquement tey boo xoolee dana dugal seen loxo ci filière bi di soutenir éleveurs yi par état ñoom dañuy soutenir sax o contraire éleveurs yi tey boo xoolee am na ci éleveurs yu bëri nga xam ne tey boo xoolee dañu am ay problème mais usines yi dañ ci teg seen loxo di leen jàppale di leen soutenir mun naa fi citer deux usines yi nga xam ne tey ñu ngi fii di liggéey ak euh, éleveurs yi euh, dañuy jàppale au contraire éleveurs bu baax a baax ci problème yi jàkkoon jàkkoonteel dem ñu defal la ay différé lebal la aliment nga jaay ba pare fay tout ça usines yi ñu ngi koy def te pourtant tey euh, microfinance yi fi nga xam ne état da ko da ko da ko da ko promettre éleveurs yi wala mutuelle yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo ñoo rey éleveurs yi état bi dafa war a gëstu xool les petites banques là taux taux d'intérêt yi ñuy teg ci kaw éleveurs yi munoo ñëw nga jox nit benn 5 millions presque taxé ko 8 millions de plus wala 9 millions de plus. nekk na beneen jafe-jafe. beneen jafe-jafe financement. te jafe-jafe boobu man état bi laa ci jàmbaaram au contraire tey usines yi jëm ci boppam ñoom ñoo wëlbati ko tey takk seen digg di jàppale éleveurs yi man duma blâmer les industries de volaille la parce que xam naa nu ñu jàppale éleveurs yi xam naa aussi parce que ay ay secteur privé la ñoom tey état géré wu mais état moo war mooy def ay négociation entre ñoom ak éleveurs yi ba nga xam ne coût aliment bi dina war a mun a wàcc. mais dafa mel ni def na ci jéego ba teggi nañ ci 1000 francs. mais 1000 francs na 200 mhm. du dara kooku du dara. Mhm. kooku boo ko tegee ci prix aliment bu jógee tey presque boo xoolee ci ñetti at yi ñu génn aliment bi jaroon na fi 13000 nangam jar fi 14000 nangam boo ko jëlee transporter aliment bi ci dépositaire bi nga xam ne fa nga ko jëndee war ko yóbbu sa tool mais boobu frais bi nga defaat ci aliment bi kon aliment bi dafa lay revient waat rek à 14000 à 17400 léegi boo ñëwee nga employé ay nit ci tool bi def location loué éleveurs yëpp am ay problème éleveurs yëpp a daanu ñëpp am ay problème ah, amul ku nekk ci filière bi te amoo ay difficulté loolu nag aussi waroon ko xoolaat. Mouhamed ci difficulté yooyu ndax gis nañu de plus en plus. jeunes yi ñu ngi daw di soobu ci li nga xam ne moom mooy secteur élevage mais gis nañ ne usines yi ñu ciy rocceeku ndànk ndax dañuy dem ba soit dañuy seen poussin yi dañuy gis ne dañuy feebar ñu génn ñu ñu dee soit dañuy daanu maanaam seen entreprise bi fi mu war du ko du ko yegg. loolu la ko war xam nga jeunesse jeunes yooyu di ay jël engagement dugg ci secteur bi ñooy en général ci ay daanaka ñu ci bari seen yaay ñoo leen financé ah, man gis naa ñu bari ñoo xam ci ay teg la ñuy teggi seen yaay mooy bokk ci teg teggi ko jox leen ko am ci jeunes yoo xam ni dañuy ambulant di dajale ambulant di dajale ba am benn somme dem dugal cher daanaka boo amee 600000 dugal cher ñu am ñoo xam ne 300000 sax la ñuy donc kooku bu ñëwee dajee ak problème bi nekk ci marché bi ak problème bi nekk ci wàllu secteur bi tamit kooku fekk du maîtriser normalement secteur bi parce que kooku ku bees la ci du ko maîtriser mais bu ñëwee gis ni perte na ci dafay gënal mais ñi nga xam ne yàgg nañ ci ñoom gis nañ autant de perte di ko am mais du tax ñu découragé ñu tout le temps ñu ngi dem ñu ngi réformer di dugalaat. tax ñu bàyyi quoi. ci loolu sax sànq ci ki ñi ñuy jox kàddu yi am na ku ne def na 40 ans ci secteur bi. mais jamono ji bor yi dañ koo xoj ba. bu ñu moytuwul. mu mu bàyyi dem seeti leneen. dafa dañoo bari bor mhm. ñooñu bor yi. génnul ci dul nga dem ba am ay problème mu aliment parce que ginaar bi 45 jours la am na yoo xam moom lay def parfois mu dem ba 45 jours du mat sax 1 kilo 300 bu baax léegi da ngay tànn ginaar yi ci biir plus de 100 wala 200 ginaar dem jaay li des nga téye yokkaat jours yi pour dundalaat leen pour ñu mën a mat 1 kilo 300 nga mën ko jaaywaat kooku il faut que mu dem jëndaat aliment day lijjantewaat aliment pour dundalaat ginaar yooyu loolu ci lay bor yi di commencé ñoom bor yi foofu lay génnee parce que fekkoon yow 30 sacs rek nga war a am pour 45 jours 30 sacs yi bu 45 jours da ko war a ja ginaar yi mat nga dem jaayu mais bu 45 jours yi jotee il faut que nga ajouté waat rajouté waat benn 5 sacs 5 sacs de cinq sacs yooyu crédit la parce que bokkul ci calcul bi loolu moo tax booy yi nga xam ne maîtriser wuñu secteur bi bu ñëwee dañuy bu ñu dugalee moo waral ñu naan il ñu am tuuti xam-xam dem defi formation def formation bi génn ci def 30 ans 40 ans yàgg très bien léegi ñu daal di tënk rek ndax temps bi daanaka xoj ñu jox Ismaël mu ñëw ci li nga xam ne xëñ na mooy solution yoo xam ne mhm. buñ ko mettroon sur place mhm. euh, secteur bi dina gën a sukkaliku ñi ciy yëngu itam dinañ ci gën a mën a gis seen bopp waaw secteur bi moom euh, loolu la laaj sax actuellement nii comme sànq sax euh, xam naa temps bi duñu ko permettre parce que moom jotoon na fi junj dara léegi euh, filière bi ni ñu koy waxee filière bi filière bi non filière bi dafa am base. filière bi c'est vrai que bokkul ak ki dem jënd ñaari carton poussin yi di ko yar këram non kooku du éleveur. non non non non c'est différent. éleveur bi mooy ki nga xam ne day def 7000 8000 10000 pondeuses. ba 15000 pondeuses employé ay nit yor toolam di liggéey ñooñu aussi ñoo nekk ci ay difficulté ak société yi mag yi jaay aliment fii ay NMA ay sédiment ma wax ko léegi ma cité ko sédiment NMA dañoo nekk des industries de volaille yi nga xam ne ñu ngi soutenir les éleveurs man duma leen wax que ne ñoom dañ dañ yàq filière bi mais au contraire que ñoom ñoo téye filière bi parce que tey da gis éleveur bu dem ba ci digg bi mu am problème ñoom ñu dugal ci seen loxo te état du ci dugal loxom banque du ci dugal loxom ñoom boo xoolee tey éleveurs yi nekk ci dëkk bi éleveurs yi magi de tey bu li ñu yoreel usines yooyu ci ay millions usines yooyu mën nañ fa jaare sax tëj te pourtant mi ngi ci loxo éleveurs yi kon donc ñoom ñu ngi soutenir éleveurs yi le seul problème daal mooy que état na toog waxtaan ak provençaux yi ñu waxtaan ci wàllu aliment bi waxtaan aussi ci filière bi parce que filière bi dañ ko wax aliment du aliment wax naa sànq léegi au départ na leen ñaata éleveurs ñooy jënd ay poussin poussin yi am problème ay poussin pondeuse nga def ci sa financement de 4 mois ganaar yi toll fu nu war a mën a nga ko mais kooku beneen beneen problème la vaccin amatul dara amatul poussin amatul c'est-à-dire filière bi pour dire vrai filière bi moo basculé wu ne këndëng ñëpp nag am ay problème ku ci defoon say millions am ngay problème ñëpp a daanu ñëpp am problème dañuy taxaw nii rek di wax nii pour la forme nii rek man ca parle pour tout le parce que pas mal du tout que xam naa beaucoup de copains yoo xam ne ay éleveurs lañu am na ay problème ci filière ba ñii ñi ngi jaay seen kër ñii ñi ngi ci yeneen problème ñu ko mënul tamit ñi ngi bàyyi mais filière moom am na problème quel que soit alpha am na problème. Euh, Mohamed ci euh, jafe-jafe yi ba tey ci piste de solution yi euh, naka la ñuy def ba ni mu ko waxee filière bi nee na këndëng naka la ñuy. Ah. <laughs> sama copain moom sama copain moom vraiment moom il faut que waaw moom nii la mën a quoi. Ismaël wax dëgg yàlla eh, lim ci daj métti na métti na trop aussi je comprends bien que nii Ismaël la sonn na ci dafa métti wax dëgg yàlla te li may wax man xam naa ko xam nga neexul ci xol xam nga nga jël benn 100 millions def ko ci di xëy di di ko ñàkk di ko ñàkk di ñàkk daanaka amatoo 100 millions boo démarré te ko démarré ku liggéey ba àggu foofu te ñu mel ne moom dañ ci bari dañuy wax dëgg yàlla moo tax bu ñuy wax man vraiment dama leen di comprendre kon heure bi jot na pour ñu def assise assise yi ñu may wax yi nga xam ni vraiment maa ngi ciy waxtaan wax naa ko ministre de l' agriculture wax naa ko ministre de l' élevage euh, envoyé naa leen envoyé naa leen ay courrier pour ñu mën a taxawal benn assise wax naa ko tam benn conseil yooyu président Macky Sall bërki démb euh, pap euh, Pape Seck bu nekk présidence wax naa ko ko ne ko instant bi fii ñu toll nii mooy il faut que ñu def ay assises nationales boole ñetti secteur yëpp waxtaane ko gis na lii Ismaïla di jooy ci volaille bi bi nga xam ne du ko maîtriser dëgg moo nekk ca mbay ma nekk ca napp ga te effectivement moom ni mu la ko waxee ci volaille bi nii noonu la ko mën a waxee ci yeneen secteurs yi loolu soxna Khadija mooy problème bi te ñun jot na tey jii ñu waxaat ko président Macky Sall euh, waxtaan naa ci euh, le ministre conseil bërki démb nee naa ko il faut que président toog ak ñun secteur boo koy réglé mënoo toog fële di ko régal ak ñoo xam ne danaan ay techniciens la ñu ngi ci àll bi te techniciens yoo xam ne ñun xam na ni li ñuy présenté ay comme rapport nekkul. ñun oui xam nañ ko ñun ñoo nekk si àll bi ñun ñoo ci évoluer ci secteur bi il faut que président ñëw ñu directement waxtaan ak ñun. ñu toog ak moom wax ko li ci pro secteur bi problème yi. aliment sax dëgg la ñooy souligne aliment mais poussin yi actuellement mi ngi jar 30 000 francs kees bi carton bi 50 poussin 30 000 francs la koy jaay te mi mu ñëw ba cinquante mille francs lépp a yokk xoolal vaccin yi muy wax nii moo gën am na ci vaccin boo xam ne daanaka trente mille lay jar am na bu jar cent mille boo xam ne koy injecté ginaar bi xam na loolu gis nga yooyu ay problème de bu la marek attaqué feebar yooyu bu ñu la duggee fan nga jëm tu dépenses plus de xaalis bu bari loolu daal gis naa ni mooy sama jéego yi di sa jéego yi yow Khadija te waa 2STV encore une fois ñoom dañuy jàpp ci combat éleveurs yi sàmmkat yi nappkat yi ñoom vraiment dañ ci yàgg xeex yàgg ci jàpp mu ñun ñëpp ak 2STV yi war nañoo àndandoo toog ak état bi ñu pencu mbir mi waxtaane ko ñu xool nan lañ koy defaree waxtaan ak industrie yi fi nekk wax na ko muy sédiment di NMA fi nekk yàgg nañ si parce que ñun dañoo judd fekk leen mais dama indi benn proposition boo xam ni waxtaan naa ko ak kilifa yi nee naa leen industrie yooyu ñoom lay seen problème te ñu koy jooy ñoom it ñun ni ñu jooyee ñoom aussi noonu la ñuy jooyee ay problème parce que ñoom mboq mi neen dañ koy importer ñoom sax bu ñuy jooy duñu wax poussin mais ñoom li ñu gën a jooy mooy mboq bi ñu importé neeneen moo cher Brésil la ñuy dem di ko jëlee ci yeneen dëkk yi mais li ñu soxla ñoo nee naa ci quantité Sénégal mën na ko bay mën nañ ko bay di leen ko jox chaque année ñoom. boo xoolee ni 2017 la ñu waxoon autosuffisance alimentaire en riz te boobu léegi mu ngi noonu gisaguñ ko est-ce que loolu tamit du beneen jafe. waaw xam nga xam nga loolu vraiment boo ko waxee ni sax euh, man lu ma maîtriser la autosuffisance alimentaire xam naa ni dañoo nekk ci yoon woo xam ne foofu la ñu jëm te jege nañ ko. mais autosuffisance alimentaire ci ban ci ban ci lan ah, ci ban ci lan quoi ci moo xam ci ceeb la wala ci gerte la wala ci mboq la wala xam nga céréale bi moom dafa yaatu donc ah, dafa am ci yoo xam ni amuñu ci autosuffisance lu mel ni mboq amuñu ci autosuffisance mën nañu wax ne dugub am nañ ci autosuffisance mën gerte am nañ ci léegi autosuffisance ceeb am nañ ko ci mais bu mel ni mboq bu demee bay jooy seeraay te aliment mooy dañoo amul autosuffisance mboq mais loolu loolu ci loolu la war a taxaw mm-hmm. président mu accompagner ñu ñun ñun dong yàgg naa ko wax te li fekk loolu amul dañuy sonn parce que am na ñoo xam ne duñu mës a wax parce que xam nga kuy liggéey sa affaire di baax yow booy boo gisee ñu jooy yow doo ci bokk parce que yow yaa ngi ci secteur bi sa affaire baax na on s'en fout hein da nga naan man man ñi ñoo jooy mais man awma problème mais man ñi may jooyal ak moom mi ñi may wax dëgg la am na ñoo xam ne ay 10 000 la dugal 15 000 20 000 mais bokk nañ ci suñu combat ñi nga xam ne wax dëgg yàlla 300 300000 francs la ñu am dem dugal ginaar am 600000 dugal xam nga lu tax loolu dafay wàññi chômage état Sénégal mënut a employé yi réew mi yëpp yëpp mënu ko état bi amul moyen yooyu industrie yi war a nekk ci réewum Sénégal war a taxaw jël ndaw ñi liggéey nekku fii léegi xale yi bu ñu ñafee am benn 300000 kooku may ko départ kooku am na départ kooku li war mooy accompagner ko gunge ko kooku normalement su génnee ci loolu war na mën a dem ba am 600000 1 million commencé dem. atteindre objectif mais bu fekkee ñun ñëpp dañ leen rey ñu dee xale yooyu dawaat ci génn mooy ñi nekk si mbedd yi di jooy gu dégg bëccëg loolu lay wax ni président Macky Sall nit ñi yaakaar nañ ko ndaw ñi yaakaar nañ ko yaakaar gi nag mooy lan gis nañ ni wax dëgg yàlla euh, lu bari mi ngi koy def ci secteur bi moo xam ci agriculture élevage moo xam pêche bi mais nag lii dafa am loo xam des nit ñi buñ gisul njariñ ci seen réew dafa am lu leen di métti frustration yu bari loolu moo koy indi moo tax ma ni nag pour ñu régler problème boobu il faut que ndaw ñi ñu centré leen ci moo xam ci élevage bi la ci agriculture bi wala ci pêche bi ñu fexe ñu gëm ko defal leen formation jëratu ko gis nit ñi bu ñu demee sur le terrain dañu formation. Mm-hmm. waaw loolu daal moom mooy affaire bi nga xam ne daal wax dëgg yàlla ci la taxaw. Mm-hmm. ànd ñun ñëpp bu nekk benn àndandoo liggéey. ngir Sénégal mën a jëm ci kanam loolu daal. nga joxal ma Ismaïla très rapidement mu wax moo de la tàggatoo. waaw sama mot de la fin mooy que sant waa 2STV bu baax a baax di sant aussi Mohamed mi toog aussi nga xam ne vraiment euh, sonn na ci filière bi lool ci filière bi wax dëgg chaque fois que mi ngi ci def ay jéego en même temps aussi éleveur la euh, xamante nañu bu baax a baax ci milieu bi mais li ma ci wax sama mot de la fin daal mooy euh, di lancer appel que le président de la République mu bàyyi xel éleveurs yi les jeunes éleveurs yi nga xam ne dañuy créer emploi yor seen société bopp di liggéey amuñu financement pour vous dire que amuñu financement moo tax may remercier les industries parce que man ñoo ma financé ñoo ma mooy que ñoom ñoom ma nangoo jox ma liggéey kon ka man nangoo jox ma liggéey moom ma financé su fekkee da ngay dem ci benn banque mu teg la ay taux d'intérêt yi nga xam ne c'est ay vingt cinq pour cent je ne doo xam mm-hmm. état gis loolu mm-hmm. mais moo war a kon donc man damay remercier vraiment wax dëgg yàlla euh, les industries de volaille la euh, aliment bi nag yokk na metti na seen tiir ci éleveurs yi ñëpp ñu ngi koy jooy euh, ñen ci gën a teg seen loxo xam ne affaire bi métti na luñ ci mën a wàññi ñu wàññi ko ah aussi di ko lancer aussi comme Pape Ngom bu Sédima aussi am na lu mu def ci filière bi kenn du tudde filière bi génn ko ci parce que sans Pape Ngom mais aussi fii éleveurs yi duñ dema ah, aussi sans NMA aussi éleveurs yi duñ dem parce que ñoom seen loxo duñ ko dugal ci éleveurs bëri ñoom toogu ñor seen industrie de volaille rek ne suñu yoon nekkul ci filière bi ah. ñi ngi daw di jéem a def qualité aliment bu baax ñi ngi jéem a fexe poussin bañ am rupture tout ça ñi ngi koy ñafe jàpp ci nag ay éleveurs yi nga xam ne mais ñu ngi wax ne concurrence bi quand même dafa déloyale bu fekkee ñu ngi leen jaay ñoo lay jaay la ginaar jaay la poussin pare di la concurrence très rapidement temps jeex na dugg soxna si euh, nit ñi pratiquement euh, euh, remercier énormément Sanders ndax aussi éleveur laa def naa ci filière bi quinze ans 16 ans gis nañ aussi nun ñu téye gis nañ nun ñuy jàppee gis nañ problème yi ñuy am parfois mm-hmm. aussi ñoom ñuy taal seen i oto indi seen i techniciens yi ñëw xool ci ko parfois nga wax leen dara ci problème aliment bi ñëw saytu aliment bi xool lan mooy problème bi mm-hmm. aussi vraiment ñi ngi bay seen waar ci côté bu ñu nekkee kon man damay remercier ñun sant leen gërëm leen mm-hmm. président nag bëgg nañ ñun ay financement président Macky Sall Mohamed yow am nga connaissance ak ñoom waxal président Macky Sall ñun yi dañoo bëgg ku ñu financé kon nan ñu financé ñu mun a yaatal suñu tool yi yokk suñu liggéey bi kanam di sant euh, vraiment waa 2STV bi Khadija mi nga xam ne moo ñëwoon ak caméraman bi def émission bi maa ngi leen di remercier di remercier aussi tamit sama xarit Amadou mi nga xam ne moo yor gétt gi maa ngi moom def nañ waaw def nañ ay émission maa ngi koy nuyu au passage def nañ ay émission yu bëree bëri fii sama tool kon donc bu ngeen ñëwee seet si ma tey fii vraiment pour waxtaan ma ngi ci wàllu filière bi dama ci am mbégte di leen sant di leen di ko di ko remercier très rapidement di rembale directeur général euh, El Hadj Ndiaye di suñu nijaay di ku baax ku ñu yàgg dimbali moom laa wax léegi rek waaw ku ñu yàgg jàppale wax dëgg yàlla nee naa bu ñëpp meloon ni moom ci réew mi rek euh, lu bari dina soppeeku parce que mi ngi puus ndaw ñi mi ngi leen di jàppale ci lu bari bari bari pour ñu gëm seen bopp loolu daanaka def naa ni Sénégal wàllu industrie ak teg teg kër gu am doole dëgg ci El Hadj lañ ko njëkkee gis def naa ni dëgg moo tax ñu bari ñeme léegi nag comme Ismaïla ni ko waxee nii ñun suñu tànk rek mooy fexe rek euh, yéen ngeen nekk ci jàmm vraiment yéen ñi nga xam ne dem ngeen macha allah ba toll ci financement yu toll nii ci investissement bu toll nii ñu jàppalee leen ñi nga xam ne xale yi doog a ñëw nii tamit ñu fexe ñu leen jàppale man li ma mën rek mooy fexe incha allah président Macky Sall di leen gën a déglu gën leen bàyyi xel ba lu ñu wax rek incha allah mu dégg ko ma lay remercier tamit yooyu di la wax ni émission bi ñu mujjee def lu bari président émission boobu dégg na ko ci suñu émission bi yoo xam dañ ko lancé woon te buñ fa jógee deux jours après lu bari réglé na ko dégg na ko ba saafara na ko kon di wax ni yow tamit ñu ngi lay bàyyi xel sa émission bi Khadija état bi ñu ngi lay déglu di la seetaan donc moo tax gën góor la góorgóorlu lii nga def bu ko bàyyi wàccal ci terrain bi dem xool nit ñi lan mooy seen jafe-jafe nga wane ko parce que ku ñuy bàyyi xel di la déglu loolu am solo la jàppal ni donc loolu daal bu ci tay bu ci kii maa gërëm merci. ñu ngi lay gërëm itam di di gërëm Ismaël mi ngi noonu loolu la ñu indiloon tey spéciale émission c'est-à-dire doon waxtaanee waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci secteur euh, agroalimentaire rawatina ci filière bi nga xam ne euh, moom mooy aviculture gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu ñu ciy yëngu ñu ngi koy euh, jànkonteel jëm ci wàllu financement ni ñu ko waxee léegi jëm ci itam ci li nga xam ne moom mooy aliment bi nga xam ne yokk na ñu wax itam ci poussin yi doon na lu jafe jamono ji gis ko neex na ba torop lu jëm itam ci nen yi gis ngeen nii ñi yàgg dem marché xam nañ ni ginaar chair na manqué na itam mi ngi noonu lii lañ leen indiloon tey ci seen spécial numéro c'est-à-dire di leen wax ni chaque jour maintenant wala chaque 15 jours dinañ faral di wàcc ci terrain bi waxtaanee benn sujet boo xam ne soxal na askan wi en attendant di leen wax ngeen woy ànd ak programme première chaîne de télévision privée du Sénégal la 2STV originalement